maa ngi tudd Baye Fall. ñu koy wax bitigu Diallo ci booru Egreg bi waaw ñu nekk fi yor ay saret di fi liggéey mu nekk ne fi la ñuy xosloo. waaw jamono couvre moom mooy dégg dégg ndigal yi nga xamante bi nii moom la ñu joxe rek bay tere yi nga xamante bi nii moom lañ tere moom boo ko saxoo moom suñ borom mën na laa muccal ba ñoom li nga xamante bi ni ñoom la bañ yow doo bokk waaye nag képp koo xam ne da nga déggul ndigal nag lépp loola daal yaa ko yebe sa bopp waaye suñ borom dimbali nañu moom mi nga xamante bi nii mooy tege jafe-jafe boo mu ko ci tegee itam yàlla dogal naa teggi ko na ci jàmm ak salaam ndax comme suñ borom mi nga xam ne moo dogaloon lii am yàlla dimbali nañu ba génnaat na ci jàmm ak salaam te kenn amul kenn bor amul kenn kenn seetul kenn ci leen daal kon ñu santewaat ko yàlla bu baax rek xam ne lu am yàlla moo ko dogal. te sare yooyu ñun moom lañu yaakaar moo suñu teraanga ci la ñuy yëngu bu ñu sañan dañuy am lu gën a kaay lool waaye kenn ku nekk suñu borom fa mu dogal say mbir fa ngay nekk ba saa su ko waree toppale toppale ko suñu saret yooyu nag bëgg nañ kuñ ci dimbali lool noo dem nañ cey démarche dem nañu mbaawul yenn fa lijjanti ba son mënuñ cee jot a ah, nu ñu def lu may jéem ñenn ñi ñu ngi yeneen liggéey ñenn ñi ñu ngi ci yeneen liggéey ndax saret yi lañ yaakaarante amuñu doole jënd saret ndax saret ñu ngi koy jënd ay cent cinquante mille ay cent soixante quinze mille léegi soo demee ba suñ borom dogal yow amoo loo jënd saret da ngay bàyyi nga dem seeti beneen métier wat ba ba am loo jënd saret ñu ngi sant yàlla borom jaam ñi ndax saa soo xëy li si sa wërsëg boo mën a gis moom da ngay sant yàlla rek di doyloo yàlla mi nga ne ci kaw suuf dogal ci dogalam nga jàpp ne ci lii ngay jëkke ndax mu nekk ci bureau jëkkewut am ne moo yëkkati jaam moo ko fa teg kon am na fi boo ñëwee nga soxla saret waa ak moom dem mu jëlal nga soxla ñëpp ñi nga xamante bi ni ñoo bokk nekk Wakaam tey yëngu xam nañ ne fii ci magasin Cheikh Cissé ku fi ñëw di nga fi gis saret waaw ndax mooy adresse bi te yàgg nañ fi ak ñoom di liggéey waaw waaye saret moom la gën a gën ngaa gën a seer moom ay mille 1000 francs 1500 mais nag ci kaw matériel bi na muy toll rek su matériel bi diisee xaay bi day gën a yéeg su fekkee dafa woyof xaay bi day woyof mais nu mu nu mu toll rek nu ñu koy yeebee rek noonu lañ koy nañ koy transporter nga liggéey moom gëm-gëm la rek loo mën di liggéey lu nekk da nga ci am gëm-gëm te xam ne loo gëm ne di ci am rek suñu borom dina ci suturaal waaye nag looy def nii di di ci yëngoo tam te jàppoo ne mënoo ci am dara maam doo ci mën am dara ndax may ñu suñ bopp yàlla borom jaam ñi moo ñuy may waaye ba mu ñu wàccee ci kaw suuf kenn ku nekk dafa am lu mu dogal ci yow loo xamante bin ni yaa xam nga xam ko yaa xam nga ñàkk koo xam waaye saa su dogal boobu jotee rek loolu dina yëg si waaye nag boo bëggee xëcc loo xamante ni suñ borom dogalu ko da ngay sonn lool ci àll bi te mbir du yëg si nit ki moom saa soo xëyee yàlla may la ak wér wér mooy mooy mooy première àdduna soo la yàlla mayee ak wér la ca des mooy nga nungoo liggéey te dem ca pays yañ koy yoo muy génn nga dem fa te nekk fa te yaakaar yàlla yaakaar doomu adama yi ndax lépp itam mu ngi ci doomu aadama yi koo gis nga def ko comme sa bopp yéene li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko mboolem taalibe yëpp bu ko defee suñu borom day wàcc wërsëg yi tappale ko kenn ku nekk li nga xam ne mooy sa wàll nga jot ci waaw waaw état mën mën ñoo ñàkk a jàppale ndax état itam bu fekkee ne li fi yàlla bind ci kaw suuf wàcc ko ci kaw suuf ñun ñëpp état mënuñoo yor ñun yàlla moo nu mën a yor waaye état moom mënuñoo yor waaye nag état kenn ku nekk mën naa def loo xam ne kenn ku ne mën na caa jaare jariñu ci waaye nag état moom mënuñoo yor yàlla borom jaam yi moo mën a yor doomu aadama yi wàcc leen ci kaw suuf kenn ku nekk mu ko jox xiiwalam waaye du état moom ñun dañ ciy te teewu nag mën ñoo def loo ne bi ni ñun Sénégal yi dañ yëg ne lii ñoom ñoo ko def Sénégal yi yëg ci seen bopp comme ñoo jiite réew mi waaye nag xam ne mooy yu ñuy jëriñ moom ci suñ borom lay bàyyi ko waaye état moom duñu ko jox kenn duñu ko jox yàlla borom jaam yi moo yor jaam yi ne moo yor sa wërsëg te moo la koy jox waaw maanaam ñu gën leen a ñaanal rek ngeen gën a yàgg te gën a wér te liggéey bi nga xamante bii nii dañ koy liggéey suñu borom defal nañ ci tawfeex defal nañ ci ndam defal nañ ci sutura daal ndax comme it mooy seen yëngu yéen tam suñu borom defal leen lu gën a kawe loolu daal ba ngeen am lu gën a kawe ndax yàlla moom moo yor lépp rek waaw nañ jël lépp ñu bàyyi ko ci loxol yàlla di ñaan yàlla lafa leen cat te lafal ko bépp julit yàlla may sam sàmm ñu te sàmm njaboot gépp aar ñu aar mboolem taal bépp ci kàttanu yàlla yonte suñu wax serba waaw xam nga yenn saa yi nit itam day yeewu yeewoo naqar woo xamante bi ni moom maanaam Ah, naqar woowu yàlla day dogal mu nekk ci moom su boobaa nag xam nga day am loo xamante bi nii yàlla dogalee yow ñu yar la ba nga yaru ñu génne la jàngal la alxuraan génne la nga génn di nga dajee koo xamante bi nii yow moom amee lu muy ñëwee yow mi yaru waroo xuloo ak moom saa soo xuloo ak moom rek yow jërutoon ñu lay yar bu fekkee yàlla dogal na ngeen nekk ñaar ñu réew nag bu boobaa mën ngeen a xuloo ndax